attaawunu fi diini wala xayaa di mbooloo mu ànd di jàppalante ci seen wàllu diine ak àdduna bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi mbokk yu tedd yu nu àndal fii ci daaray attaawunu fi diini wal xayaat muy mbooloo mu ànd di jàppalante ci lépp lu aaju seen wàllu diine ak seen wàllu àddina ak képp koo xamee ni waxtaan wi mën naa dem ba tàbbi say nopp ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di ndokkeel ñépp tey balu xàq ñëpp di ñaan buur bi subhanahu wa mu defal ñu tawfiq ñuy sant ak gërëm mboolem boroom xam-xam yu tedd yi ñu bokkal daara ji te jamono ju ne ñu fi joxe ay dars yu am solo yal na leen yàlla fay waaye di santatem mboolem ñu bokkal daara ji te ñuy tasaare darsi ba muy àgg fu sore sori lépp ngir njëriñul doomu aadama yi yàlla na leen yàlla fay mbokk yi nag ñi nga xame ni noonu lañu leen ko waxe woon ni ci kàttanu yàlla altine tey jii yemoo ak fukki fan ak juróom benn ci weeru août deux mille vingt et bu ñu ñëwee ba waxtu bii dinañu am mbégte ñi ko sëriñ Mbacke Diop leerale woon ànd ak kenn ci boroom xam-xam yi ànd ak kenn ci ñi nga xamee ni ñoo moom ñoo bokk daara ji muy Serigne Souleymane Badiane ñu xam taxawaayam ci xam-xam xam taxawaayam ci jàngale xamatem yitte ji mu jox xam-xam ak xamle bokk ci ñi nga xamee ni yàlla nattoon na leen ñu ñàkk ak jot waaye ànd ak li ñuy ñàkk ñàkk ak jot fu ñu leen woowee ci toolu xam-xam ak xamle lépp lu ñu jàpp dañu koy bàyyi ñëw ngir njëriñu doomu aadama yi euh, fadilatul ustaz Serigne Souleymane Badiane yaakaar naa ni mën naa am ñu takku ci mbooloo mi jombul mosuñoo jàkkaarloo ak moom waaye nag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 إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اصطفى بك دار جيدي التعاون في الدين والحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجلن دي نيو نيو بسلام بوبو دي نيو كيب كوي ديك سنو كادو دي زيارة مبولم كليفي أكبرم خم خمي نكتي دار جي روتنا شيخ مورتال فالمينو أندل جرائبي di ñaan borom bi boole ñu defal jàmm ak tawfiq tomb bi nga xam ne moom lañ fas yéene bokk nafar ak yéen bokk ko jàngat bokk ko fàttaliku mooy bunt bii di azaka azakaat di tomb bu yitteel bu war yitteel jullit yëpp ndax ni ñu ko xamee mooy ponk la ci ponk lislaam juróomi kenu yu mag yittee mbaarum lislaam juróomi poto yi taxawal néegub lislaam azaka benn la ci mooy mooy mooy ñetteelu kenu ba ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jàngale moom nag bunt la bu yaatu li ci aju ci ay masala ak yi teqale ki leeral bëri na lool moo tax tey dañuy ñëw rekk ci fàttaliku lan mooy azaka ak lan mooy atteem ci lislaam ak lan mooy taxawaayu jullit bi ci azaka ak sàgganee ko bañ koo def lan la mën a jural jullit bi waaye ñëw ci yenn masala yoo xam ne yu yitteel la ak fii jamono tollu nga xam ne at mu bees lañu nekk di ñaan suñ boroom mu defal ñu ko atum jàmm atum tawfiq atum fajug xaajo di ko ñaan at mi ñu génn ak yee ko jiitu lu ciy njuumteeg rëcc rëcc yàlla na borom bi boole lépp labal ca géejug njéggalam ga barkeb alquranul karim dañuy tàmbali xamle lan mooy azaka azakat làmmiñ wi ñuy waxee di làmmiñu wolof du ñàkk am na tur wuñ koy tuddee waaye baat bi siiw te tasaaroo lool muy azaka baatu arab la wala fi dañ ko jëlee ci arab muy azakat noonu la ñëwee ci alquranul karim noonu la ñëwee ci làmmiñu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay xadisam noonu la ko arab yi di waxee azakaat nag buñ ko bëggee xamle dañuy dellu ca cosaanal baat bi luxatan lu muy firi dañuy fekk ne am na ay maana yu bari waaye maana yooyu yëpp boo ci topp rek da ngay fekk mu am alaaqa bu dëgër day am lu ko takk ak maana mi nga xam ne moom la ci sharia jublu muy al maana al istilaahi azaka ci luxa dana firi ak annama wa ziyaada maanaam ak ak yokk dana firi ak dolliku comme dana firi al baraka dana firi barke dana firi al madxu wa sana dana firi tagg comme dana firi asalaax muy ak yiw ak mbaax waaye dana firi safwa muy ak sell dana firi ak tahaara muy ak laat baat yii maanaam baatu zakat ci maanaa yu wuute yooyu daanaka buñ demee ci alquranul karim rek danañ fekk ne alquran jëfandikoo na baat bi mu tegtale maanaa yooyu ñu wax yépp buñ delloo ci waxi arab yi danañ fekk baat bi mu tegtale maanaa yooyu yépp loolu nag lim ñuy jàngal mooy li sharia tuddee azzakat te mooy nit ki jël ab xaaj ci alalam danañ ko leeral dafa am alal euh, xeetu alal june ak na ca azaka di génnee waaye alal ja na muy toll ak la nga ca war a jël xam ne lii moomoo ko yàlla mi la jox alal ji yàlla mi la dénk alal ji moo la ko laaj wax la ña nga ko war a jox nga jox leen ko loolu mooy azaka li ci nekk ci ay njariñ ak yiw nag buñ ko bëggee xam dañuy delluwaat rek ci ci cosaanal baat bi li muy firi ci luxa mboolem maanaa yooyu ñu wax léegi muy ak yokkute azaka da koy def kii génne azaka azaka jooju dana dana dana dana yokk alalam loolu yàlla alquran la waaye azaka dana ko laabal dana laabal aji génne azaka ji setal ko ci ay bakkaar waaye dana laabal alal ji setal ko comme dana barkel azaka ji joxe gi mu koy joxe dana jur aw tag motax makna yoy muy makna yi baat bi di tektale ci luxa buñ ñewé ci baatu zakat bu ko sharia waxee lim ci jublu yow mi koy jëfé makna ye yep di ay yiw day delluwaat ci yow mi nga xam yaay genné azaka kon lu am solo la ñu doy rek ñu seetlu bu baax a baax ne lislaam dafa mel ni rawat na bunt bii di fiq boroom xam-xam yi dañ ko def muy ñaari xaaj muy fiqhul ibadat ak fiqhul muamalat ibadat mooy jaamu yàlla yi jaamu gi nga xam ne nit kan koy jaamu boroomam jaamu gi jullit bi di jaamu yàlla ngir yàlla yooyu mooy ibadat yi fiq da koy jàngale di ko leeral ci ay bunt yu wuute tàmbalee ci laat ñëw ci julli ñëw ci azaka ñëw ci woor ñëw ci xaj màkka ak umraak ya ànd ak yooyu ñu tudd beneen xaaj ba mooy fiqhul muamalaat muy jëflante yi nga xam ne nit ki dana ko jëflanteeg mbokki jullitam jëflante ko ak ñeneen ñu bokkal dëkk ci kaw suuf même buñ dul ay jullit waaye ni muy jëflante ak yeneen mbindeefi yàlla yi dund ci kaw suuf doonte doonuñu ay nit motax muy lo ama am solo loolu boko xamé rek nga xamné al fiqul islam yi ñaari bankas yoy la li digënté jambi ak boromam la li digënté jambi ak mbindeef yi mu bokal di dund ci kaw suuf lu ci ne sharia indi ci ay njàngale teg ci ay àtte yu leer waaye boo xamee lool nga ñëw fekk ci alquranul karim borom bi lu bare bare di lëkkale baatu azaka ak baatu julli muy ñaari jëf yoo xam ne yépp jaamu yàlla la waaye boo seetloo da ngay fekk ne julli diggante jaam bi ak boroomam la lenn ni keneen nekkut ca julli lépp jaam bi jokk gi muy jokk boroomam yàlla la moo tax aji julli ji bam xabaaree di julli rek dog na àdduna ak li ci biir àdduna geestu sax sañatu ko sañu la lekk sañula la naan sañu la wax lu dul ma ca julli gi rek ba ba muy sëlmal muy jokk gu dëgër goo xam ne borom bi Euh, baaxe na ko jaam bi mu man di dellu ci moom waxtu wu ne lu mu néew néew juróomi yoon ci bés bi asaka mi di jaamu yàlla waaye jëflante la diggante jaam bi ak ay mbokki jullitam moo tax jullit bi bu góor góorloo ba ay julleem baax mel na mu war a mel góorgóorlu ci buntab asaka bi mu baax mel na mu war a mel léppam baax na ndax lee mooy defar diggante mook boroomam lii mooy defar diggante mook ay mbokki jullitam loolu danañu leeralal benn sirru muy benn secret ci secret yi tax borom bi subhanahu wa taala ci alquranu karim di lëkkale julli ak azaka mooy ñaar yi jullit bi mënta ñàkk yéwénal diggante mook boromam yéwénal diggante mook ay moroomam muy jaami yàlla yi moo tax ci alquranu karim fu borom bi waxee julli wax azaka ca pegg ba xeetu waxin yépp nag dana ñëw ci ndigal وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دنا نيوتي آه، فعل ماضي نجانغا وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة دنا نيوتي فعل مضارع يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بعض الزكاة الزكاة في القرآن الكريم نيونا فانوير الجرم بين القرآن الكريم buñ ci bëggoon a taxaw aaya par aaya leeral aaya ba loolu diir bu yàgg ay fan yu baree bari lay jël te duñ ko matal moo tax dañoo bëgg a tënk rek e, ñëw ci baat yi fi ñu ñëwee ci alquranu karim boo demee ca suratul baqara ci aaya quatre-vingt-trois wala aaya quarante-trois suratul baqara aaya quarante-trois da nga fekk borom bi wax wa aqimu salata wa aatu zakata warkau maa arrakiin تكاد بطاي في سورة البقرة آية 83 ببرم بني وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بطاي في سورة البقرة آية 110 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله جنجات بطاي سورة البقرة 117 وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا نقدون بطاي في سورة البقرة آية 277 وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم لهم أجرهم عند ربهم نون غي جانغات بطاي تا آه، سورة النساء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نكنون والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما تسورة نساء آية 162 ندم تسورة ما إذا فكفل إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الآخر عسرا إلى آخر الآية نكنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون تسورة ما إذا بطي تشوط الأعراف فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة بطي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم جاء شروط التوبة جرميلو آيبا نقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإعوانكم في الدين نون نقول تطيب أملو مات نار فكي آية أك فنوير آية أك نار borom bi di tudd azaka li ci ëpp muy lëkkale julli ak azaka comme ni ñu ko waxee loolu doy nañu sëkk ñu xam ne azaka lu màgg la waaye lu jullit bi war a taxawee la ndax borom bi wax na ci waxaat ci waxaat ci ba fanweeri aaya ak ñaar ci téereem bu tedd bii di alquranul karim yemut ci ndax am na yeneen baat yuy firi azaka yu bokkul ak zakat lu mel ni sadaqa wala jamu ba muy sadaqaat صدقات مم خم نيونا جوم نارين القرآن الكريم برم بدو عنا إن تبدو الصدقات فنعم ما هي نقول مانجا سورة البقرة آية 211 ويمحق الله الربا ويربي الصدقات صدقات نكتي آية هي دي فري أذكا كم ننكو خمي waye di firi sarah ak du'a ta alal mutlaqat nga jangat ko ca wa may yalmizuka fi sadaqat فإن أعطوا منها رضوا جنگر كوتا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب بآية وجيح آية, آية بوبوتا سورة التوبة غقر نتلا برم بلير لين نانك نانك نان لن ورجوح أزكا نجرم نتي خير بجنگر الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات بجانج ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات يبكى سورة التوبة وايد جانج أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات سورة المجادلة كم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى سورة البقرة يجب لم لنتجبلو وانا موي يتل يتل يتل جينا قبل أذى يتل نكو ak wàccuwaayu asaka bu rëy bu kawe ci lislaam ba jullit bi war koo bàyyi xel jamono ju nekk asaka noonu mu feese ci alquranul karim kazalika noonu la mel ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa moo tax téere yi jàngale sunna ñaaree boo ci ubbi rek da nga fa fekk kitaabu zaka baabu zaka bunt boo xam ne asaka lay jàngale da ko fekk ca muwattawu imam malik li nga xam ne mooy ndayi téere yi jàngale sunna noonu nga koy fekkee ca saxiixul buxaari noonu nga koy fekkee ca saxiixul imaam muslim noonu nga koy fekkee ci sunanu tirmidi nasaa'i ibnu maaja abu daawud noonu nga koy fekkee ci musnadu ahmad ibnu hanbal ak téere yi jàngale sunna di jàngale sharia islaamiya yépp danañu doy rek misaal buñ demee ci saxiixul buxaari ca kitaabu zakaa muy xadis te junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom mille trois cent quatre-vingt-quinze ibnu abbas radiallahu anhuma mooy nettali na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónni na muaz ibnu jabal anhu yaman keroog ba yonentu di yónni yaman da ko jox ay ndigal yu leer wax ko la tax mu yebal ko yaman ngir muaas bu demee man faa toog toogaayu yonantu toogal ko fa di wax ay waxam di jëf ay jëfam di àtte ay àtteem bokk ca lam ko dénkoon ne ko boo demee yanam yaman ud'uhum ila shahadati an la ilaha illa allah wa anni rasulullah woo leen ci ñu seede kennuk yàlla nañu wéetal yàlla kennal yàlla seede ne man muhammad mi yàlla ma yónni buñ nangoo fa in hum ataau li dalik buñ nangoo loolu fa alimhum xamal leen ann allaha qad iftarada alayhim xamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla xamal leen ne yàlla farataal na ci ñoom juróomi julli ci bés bu nekk guddeeg bëccëg gu ne vingt quatre heures yu nekk rek am na juróomi julli yuñ war a julli yàllaa ko farataal ci ñoom buñ nangoo loolu fa in hum ataau li dalik fa alimhum ann allaha iftarada alayhim sadaqatan fi amwalihim tuxadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim bu nangoolul muy julli xamal leen ne yàlla farataal na ci ñoom azaka yàlla farataal na ci ñoom azaka ci seen alal nu muy demee dañ koy jëlee ci way woomal ci ñoom delloo ko seen way ñàkk lii fàttali lañ la waxoon nga xam ne gis nga ñetti ponk yi njëkk ci lislaam bi njëkk bi mooy shahadataani mooy caabi ji lay ubbil buntab lislaam dugal la ci biir ba nga duggee ba noppi la gën a feddli ko mooy sa diggante ak sa borom lépp yéwén muy julli la ca toppaat mooy sa diggante ak jaamu yàlla yi muy azaka lii bu yéwénee li ci def lépp ay yéwén waaw jullit bu faxee baax diggante mook boromam baax diggante mook jaamu yàlla yi baax loola mooy jullit bi mel na nam war a mel yeneen yi lislaam bëgg ci ay melokaan ak ay jikkoog yamuy digle yépp dañuy fekk mu fees ca dell taq ca bu baax a baax a baax waaye la lislaam di bañ ak di ko sib ak di ko tere da koy sori lool loolu doy na ñu ñu xam wàccuwaayu azaka ci sharia islamiya ci bunt boobu boo demee buxaari yi indi na yeneen xadis yu bëree bëri bokk na ca xadis boo xam ne abu hurayra radiallahu anhu mooy nettali ne anna arabiyan ata annabiya sallallahu alayhi wa sallam fa qaal dullani ala amalin ida amiltuhu daqaltul janna benn araab yi benn sàmm bu jógee ca kaw ga yonent bi daan gan ay ay sàmm yoo xam ne ca kaw ga lañ nekk xamuñu lu bari ci dund bi ndax ñoom seen liggéey seen xam-xam seen yitt yëpp mooy àll beeg jur gi di sàmm gan ñooñu nga xam ne buñ ñëwaan buñ ñëwaan ci madina saxaaba yi dëkk yonent bi xam ko wormaal ko wekk ko ba am na yoo xam ne sax buñ ko bëggee wax danañ ko waaj waajaat ko wala duñ ko ko mën a wax bu ab araab yu ñëwee dañuy daw ñëw toog ndax araab yu ni ñoom ñooy laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ne wax lu ne bu yonent tontu ñu mën caa jëlee xam-xam Seydina Abu Hurayra nee na benn araab yu dafa ñëw ne yonent bi tegtal ma wax ma jëf joo xam ne ba ma ko jëfee rek dugg aljana xaal يرمت نكو صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم صلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان بن دنجي جامو يالا تي ويتل كو كنال دوكو بوكالي أكبر نغطا عوال جولي جروم يغا قمني فرطلا جوحي أزاكا ميغا قمني فرطلا وور ويرو كور arabi bi ne yonent bi walladi nafsi bi yadi laa azidu ala hada lii nga ma wax daal danaa ko def waaye du ma ci yokku dara lii rek laay def fii laay yem daal di sol ay dàllam dem ba muy dem yonent bi ne mbooloo mi ku bëgg a gis nitu aljana xoolal kee ku bëgg a gis nitu aljana xoolal kale moo tax ba mu ne walladi nafsi bi yadihi laa azidu ala hada sayidna abu hurayra nee na falamma walla qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli aljannati falyandur ila haada kon lii doy nañu ñu xam ne azaka du la wax farata la boo ko deful da am bakkaar waaye ponk la ci ponk lislaam lan mooy ponk ponk lislaam yi juróom mooy yi ëpp solo ci diini ji yi mënta ñàkk nga xam ne ku ci weddi benn wala nga sikk sàkk ci benn mooy yaa génnee sa bopp ci lislaam muy shahadataani ñaari baat seet yi di julli juróom di asakami di woor weeru koor di xaj mag moo tax atteb asaka ci lislaam duñ la la wax ne lu war la walla farata waaye dañ naan la ponk la ci ponkul lislaam dañ ko war a gëm ne lu yàlla farataal la lu mënta ñàkk ci diini ji waaye dañ koo war a jëfee ni ko borom bi digalee ndax kat kii lànk bañ a joxe azaka te azaka war ko moo xam baykat bi bay ba ñorle lu mat nisaab la moo xam sàmm bi fàggu ak jur ay gëléem ay nag ay xar ay bëy ba am ci lu mat nisaab moo xam kii yëngu di liggéey ci leneen di ci jëlee dara ba am nisaab ci xaalis walla ci wurus wala ci li taxaw taxawaayu xaalis ak wurus tey ba noppi lànk bañ a génne asaka kooku sharia day xool kii lu tax mu bañ a génne asaka ndax ñaara taxaw ci kanamam mën naa am daa weddi gëmul ne asaka lu war la wala nangu na ne asaka lu war la gëm na ko waaye nay wala bañ a joxe moo xam daal lu ko tey joxe kii weddi waru asaka kooku ab yéeféer la amul benn sikk sàkk kenn fàttewul ñëpp xam nañ ne keroog ba yonent bi wuy jee boroomam sallallahu alayhi wa bokk na ci xew-xew yu métti yee njëkk xew ci lislaam ay kuréel ay mbooloo jóg taxaw ne ñoom ñoo lànk danañu julli danañu woor ñu xaj waaye asaka moom duñ ko joxe ñooñu naka la saxaaba yonent bi sayidna aboubacar sayidna omar sayidna ousmane sayidna aliyu ak saxaaba yi yaroo ci keppaaru yonent bi xam lislaam dëgg dëgg xam ñoom naka lañu jëflante ak ñee bañoon a joxe asaka dañoo jël seeni ngànnaay takk xare jàmmaarloo ak ñoom kuñ ca rey perte na bu ko yàlla jéggalut bu dee safara la jëm ndax ponk lislaam yi benn bu ci nit taxaw bëgg ko wedd ne warut loolu mooy yaa génne sa ci diine moo tax képp ku weddi warut asaka kooku loolu loolu kufru billaahi la wal iyaazu billah kii nangu warut asaka waaye nag nangu ko joxe bu fekkee jullit ñi organisé wu nañ am dawla islamiya am njiit di àttewoo ci lislaam kooku dañ koy forcé jël ci moom azaka bu ko neex ak bu ko naqaree doonte dañuy xeex ak moom ak doole ju mën a am dañuy xeex ak moom jël azaka ca xeex boo xam ne chance am bëri wu ca ndax buñ ko ca rayee mu perte du mu di fenn te kum rey moom ñu war a ko àtte àtteb ku rey nit war a fayu ci moom lii mooy àtteb sharia ci ponk boobu nga xam ne mooy azaka bu fekkee nag jullit ñi néew doole gaar na leen wala càggante ba lu bare bari ci seen diine neenal nañ ko di dox ci ganeen anam gu bokkul ak ga lislaam gërëmoon ci ñoom comme ni mu xawee sunu jamono ji nga xam ne suñu réew yi daanaka ak réew yu ëpp ci àdduna bi amuñu dawle islaamiya organisé wuñ taxawal nguur goo xam ne nguur ak lislaam la di àtte woo àttey lislaam bal kenn ku nekk dañ koo bàyyee ak diineem kem na ak ragal yàllam toll lay jëfee diineem bu jalgatee wàcc yoon wala mu neenal farata wala mu neenal ponk màbb ko kenn amul ci moom yoon kenn sañul ci moom dara waaw ci boróof yu lëndëm yi ku lànk bañ a génnee asaka moom lan mooy mbiram kenn sañu la dem di xeex ak moom di ko jël kenn du ko taxawal di ko àtt ne ko ab yéefar nga it ndax àtt bi nekku fi waaye moom mbiram digganteem ak yàlla boroomam la muy yaw القران bu leer nañ borom والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون مفسرون أكسيني وتكسيني بللوا أتيني جني أبدي جيني أمتي آي وإيه تقاتل برمبي دي وعنيه ñi nga xam ne dañuy denc wurus di denc xaalis azaka war ca ñu lànk bañ koo génne duñ dépassé duñ joxe lañ waroon a joxe ci yoonu yàlla fa bashirhum bégal leen loo di bégalee mbugal mu metti moo leen di xaar mbugal mu metti moom mooy lan yàlla ne alal jooja ñu dencoon muy wurus muy xaalis ba ëllëg yowmal xiyaam moom la ñuy tàngal ba mu tàng jër ba mu doon safara soo xam ne waxuma la laal waaye jege ko rek ëpp na boole leen ak malaaka yu leen koy yu leen koy ñaas jël tàngoor woowu di ko teg di ko rëdd ci seen yaram di ko ñaas ci seeni jë ak ci seeni wet ak ci seen ginnaaw naan leen lii mooy la ngeen dencoon lii mooy la ngeen dencoon ngir topp seen bànneexu bakkan mooy la ngeen denc leen seen bakkan mos leen mbugal mi nga xam ne yéen ko fàggul seen bopp ndax yéen a dencoon alal yàlla war ca génne azaka lànk bañ koo génne lii jullit bu ko xam rek ala kulli xaalin dana yittewoo dana taxawee dana bàyyi xel ponk bii di azaka nga xam ne buñ waxantee dëgg ci suñu réew yi ñu bëree bëri sàggane nañ ko am na benn benn yuy góor góorlu di ko génne waaye bañ ko génnee ba noppi ndax ña koy joxe na ko lislaam gërëmee am nañu tarxiis daanu foofu am ñu daanu ca jël bu njëkk ba ca daanu bu njëkk ga mooy du ñu génnee asaka ñenn ñi dañ ko jéem a génnee am ay njuumte def ko ci anam gu bokkul ak lislaam rëdd ñenn ñi dañ ko génnee ca nañ ko war a génnee waaye joxe ga ñëw indi jafe-jafe ba la taxoon lislaam yoonal asaka ak yiw wu rëy ak xéewal yi yàlla digee ci kiy joxe asaka Euh, sa dëgg-dëgg aj nañ ko seen bopp ci kaw ay njuumte bu ñu xamee àtteeb azaka ci lislaam xam àtteeb ki ko weddi walla ki ko bañ a génne doonte weddiwu ko ak ki nga xam ne sax àtte dawul ci kawam doonte azaka war na ko mu lànk bañ koo génnee benn àtte dawul ci kawam luy mbiram dana baax it ñu xam jullit bi góorgóorlu di génnee azaka ni ko borom bi digalee ni ko lislaam bëggee lan mooy mbiram mooy aw yiw yiw wu rëy yiw wu dul jeex àdduna ak alaaxira ndax lu am solo la ñu xam ne azaka du wàññi alal waaye da koy yokk loolu danañ ko jàng ci xadis yu bari danañ ko jàng ci aay yu bari waaye danañ ko gis dund ko ci ay xaal yu bari yàlla wax na ci alquran wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifu lépp lu ngeen dépassé te la jiitu ci dépassé mooy dépasse bi nga xam ne farata la dépasse bi nga xam ne ponkal ci lislaam muy génnee asaka leneen lu ci topp door caa topp yàlla ne moom mooy wuutal indi la neen wax ñu ci beneen aaya ne yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqa gis nga riba kii leble téeméer ñu fay ko ñaari téeméer kii leble junni yu ñaari junni kii leb leen million fayu ñaari million loolu day mel ni ak yokkute la waaye ndeke loola mooy wàññi alal loola mooy faagaagal alal loola mooy génnee barke ca alal ba alal ja même bu bëree ci lim du jariñ du jariñ àdduna du jariñ àllaaxira bu jariñee benn dana lor fukk loolu musiba la yamxaqullahu riba alal jii nga xam ne nag boroom génnee na ca azaka xaaj na alalam fukki xaaj joxe benn ba ne azaka la joxe ko ngir yàlla wala xaaj na alalam ñeen fukki xaaj joxe benn ba ne azaka la joxe ko ngir yàlla mu mel ni alal ji daa wàññeeku alal ji moo yokk lii mooy barkeel alal lii mooy yokku alal mooy tax alal jariñ adduna mooy tax alal jariñ àllaaxira yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqat waaye cheytaane nag moo bawul nit ñi alcheytaanu yaidukum alfaq wa yaamurukum bilfahsha wallahu yaidukum magfiratan minhu wa fadla yàlla mooy woote ci joxe leen génne leen azaka farataal naa ci yéen azaka jox leen way néew doole yi taxaw ci wet gële naan hëy bu ngeen joxee seen alal jeex bu ngeen joxee dañuy ñàkk ñii jëriñoo jox ñii nàngam kon mbokk yi jullit bi am iman jullit bi gëm yàlla ak gëmam dëggu fi moom faw mu xam ne lii borom bi wax rek mooy dëgg mooy azaka day yokku alal di ko barkeel di ko lewal di ko def muy jariñ dara gënta métti nit ki di liggéey di sonn di ñaq guddeeg bëccëg di ab jullit war a bàyyi xel diggante ak boromam fàggu alal ci anam gu lew waaye bañ a génnee xàq yàlla ba alal jépp mujj maar day taal yi mel ni kaasu deret boobu nga xam da nga koo sotti ci paanu soow mi yàq na lépp asaka ji ni muy barkelee alal di ko yokku noonu lay laabale alal ji di ko ñoŋeel di ko musal waaye di laabal jëmm ji nga xam ne moo génne asaka di ko laabal ci safara di ko laabal ci mbugalum yàlla di ko laabal ci ragg-ragg gaar-gaar yeeg jafe-jafe yi nga xam ne moo taqoog àdduna kon lu ama am solo la ñu taxaw foofu ci tomb boobu ñëw nag ci euh, jamono jii ñu toll nga xam ne at mu jeex ak at muy tàmbali euh, war nañoo bàyyi xel fàttaliku xàq borom bi nga xam ne mooy at jamono ji ñu tollu di nawet waaye di fan yu njëkk ci weeru muharram ku wax muharram wax at mu jeex ak at muy tàmbali ci lislaam te azaka doonte xeet yi ñuy génnee azaka wuute nañ waaye li ëpp ci asaka rek at ak at lañ koy génnee xam nga ne baykat bi waxtu génnee asakaam mooy ñorug mbayam lam bayoon saa bu ñoree ta mat ni saab moo xam waxtu wu mën a doon loola mooy waxtu joxe asakaam wa aatu xaqahu yow ma xisaabi kon waxtaan wi tey mënta jëm foofu ndax tolluñ ci jamono sàmm bi boroom gëléem yi nag yi xar yi bëy yi moom bu génnee balaa génnewaat at lay doon moom it fukki weer ak ñaar waaye euh, commerçant bi homme d'affaires bi fonctionnaire bi euh, liggéeykat bi kuy fàggu kuy liggéey lu mu mën a doon borom bi di ko suturaal mu di ca jëlee dara dara jooja mu di ci dund di ci dundal ak njabootam di am lu muy defal di denc ba loola mat nisaab am ci moom fukki weer ak ñaar muy at xaq yàlla jii di azaka tegu na ci kawam xaq yàlla jii di azaka tegu na ci kawam na sàmmoon teg moom loolu tax ci jamono ji nga xam ne ata ngi jeex tàmbali képp koo xam ne war ngaa génne azaka ndax sa alal mat na nisaab te am na fukki weer ak ñaar yu mat na la wóor ne yaa ngi ci sa waxtu woo xam ne azaka ngi lay woo borom baa ngi lay soññ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi lay soññ ci lii nga xam ne yàllaa ko farataal ci yow muy lu mënta ñàkk ci jullit bi alhamdulillah ñi ngi sant yàlla di julliwaat ci yonentam bi alayhi salaatu wassalaam di ziyaarawaat mbokk yi ànd ak ñun waxtaan wii ci daara ji bi at taawunu fi diini wal xayaa waaye di jéggulu ci dog-dog boobu nga xam ne julli a ko waral kon dañuy dellusiwaat fi ñu yemoon mottali waxtaan wi ak tomb bii di nisaab nisaab di lu mat a xam ci buntab azaka lan mooy nisaab nisaab mooy tolluwaay bi nga xam ne bu ni alal tolle rek azaka war na li fee tollugul noonu azaka waragul loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale ci xeeti alal yi ñuy génnee azaka yëpp yonentu moo leeral lan mooy nisaab ci gàttal bu dee jur yi boroom jur yi ñeenti xeeti jur la sharia joxoñ ne azaka war na ca muy gëléem di nag di xar ak bëy bu la neexee sax ne ñetti façon jur ñetti xeet ndax gëléem ak nag xar ak bëy dañ leen a jàppee benn gëléem ku ca am juróom ku am juróomi gëléem yoo xam ne yaa ko moom moom gu mat gu wér bi nga ko moomee ak tey mat na fukki weer ak ñaar muy at loola mooy nisaabu gëléem asaka war na la doon doonte juróomi gëléem bëreegul moo tax doo joxe gëléem asaka war na la waaye am xar ngay joxe walla aw bëy nag ku ca am fanweer ku am fanweeri nag moom ko fukki weer ak ñaar manqué fanweer benn yoon rajulun tabiun fi salaasina baqar musinnatun fi arbaina tustatar maanaam fanweeri nag yi war ngaa joxe asaka benn yëkk bu ndaw bu dee fanweer ak benn noonu la ba fanweer ak juróom-ñeent waaye bu ma tey ñeent fukk nga war a yokk sa loxo war a génnee musinna nagu jigéen woo xam ne am na euh, lu mu néew néew ñaari at xar ak bëy ku ca am ñeen fukk yaa xam da am ñeen fukki xar wala ñeen fukki bëy wala ñaar fukki xar ak ñaar fukki bëy wala fanweeri xar ak fukki bëy ah nu mën a demee ba mat ñeen fukk rek loola mooy nisaab ba asaka war na la war ngaa joxe benn bu dee baykat yi mbay mi moom mbay mi moo xam baykatu ceeb bi baykatu mboq bi baykatu dugub ak yi ñi bay te asaka ci wala kii bay ay toolu tàndarmaam wala ay rasin meññet yooyu asaka war bi mooy xamsatu aw suq noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale juróomi wasqu luy juróomi wasqu wasqu nattuwaay nattukaay la woon ca jamono jooja waaye pour mu leer juróomi wasqu benn wasqu bu ne moo tolloo ak juróom benn fukki saa benn saa bu ne tolloo ak ñeenti mudd mudd nag mooy lan mudd kenn du wax ne kilo wala liibar ndax du lu ñuy peese waaye lu ñuy natt ak loxo la maanaam boo tibbee sa ñaari yoxo ba mu fees te loxo yi euh, rëyul tuutiwul mu ngi ci diggant bi ba tàllaloo lépp digg doomu na ba nga tibb ca ceeb ba wala ca ñebbe ja ca dugub ja loola mooy benn mudd nga defaat muy ñaari mudd boo ko defee ñeenti yoon am nga benn saaq defaat ñeenti yoon muy ñaari saaq boo amee juróom benn fukki saaq loola mooy benn wasku boo ko defee juróomi yoon mooy juróomi wasku loolu mooy ne nisaabu mbay loolu nag buñ ko bëggee xam ci suñ mbay yiñ gën a miin ci réew mi muy loo xam ne luñ luñ gëstu la luñ natt la ceeb baykatu ceeb yi ku ci ñorle quatre cent cinquante kilos ñeenti barigo genn la dëgg-dëgg am nga juróomi was ko azaka war na la loolu moom du du du lu ñuy nattale wala lu ñu laaj waaye lu ñu peesal suñu bopp la ba xam ne nii la toll bu dee dugub dugub yi suuna yii baykat yi xam nañ ko trois cent kilos muy ñetti barigo ku ko ci ñorle azaka war na la moo tolloog juróomi was mboq trois cent soixante quinze kilos ñetti barigo ak juróom ñaar fukki kilo ak juróom ñebbe moom it kazalika ñetti barigo ak juróom ñaar fukki kilo ak juróom gerte deux cent vingt cinq kilos ñaari barigo ak ñaar fukki kilo ak juróom loolu mooy nisaab ci mbay yooyu nga ñëw nag ci li ci gën a gën a yitteel ci jamono ji ci toll tembe muy muy muy xaalis waaw bu dee xaalisu CFA bii di di nekk ci marché bi ci Sénégal di ko jaayante ga jëndante nisaab bi nu mu toll dañuy njëkk leeral ne nisaabu xaalis bi yonent bi sallallahu alayhi wa di jàngale nisaab booba li xewoon ci àdduna mooy al zahab ak al fidda maanaam or wurus wala xaalisu ngal xaalis bi nga xam ne moom lañuy tëgg di ci defar ay takkaay moom lañ daan jaayantee ka jëndantee yonent bi jàngale ne bu dee wurus la ñaar fukki dinaar mooy bu dee xaalis ñaari téeméeri ca jamono jooju nag ñaari téeméeri dirham yooyu day weccanteeg ñaar fukki dinaar nga xam ne benn dinaar bu nekk rek day tolloo ak ñaar fukki dërëm maanaam benn dinaar bu nekkoon day tolloo ak fukki dërëm benn dinar bu ne day tolloo fukki dërëm boo amee ñaar fukki dinaar mu mën a wecc ñaari téeméeri dërëm bi jamono soppeekoo nag ba yegg si fii mu yegg si tey nga xam ne réew yi réew mu ne am nañ xaalis boo xam ne amal nañ ko tur ak melokaan ak nañ ko liggéeyee moom lañuy jaayantee ak di ko jëndantee ci marché yi bu ñu bëggee xam bu dee suñu réew mii di Sénégal xaalis bi fiy dox di CFA buñ ko bëggee natt ci ñaar fukki dinaar wala ñaari téeméer dirham dañuy fekk ak wuute ak soppeeku gu rëy wax naa la ca njëlbeen booba ñaar fukki dinaar yi ak ñaari téeméer dirham ñoo daan weccante tey nag dinaar bi or bi daa gën a cher xaalis bi lu baree baree bari moo tax boo xaymaa ñaar fukki dinaar lum war a jar ci CFA daanaka da ngay bëgg am ñaari million ndax ndax ndax da nga da nga da nga da nga am da nga am un million neuf cent douze mille cinq cent francs waaye boo xoolee ñaari téeméeri dirham ñaat la mën a jar ci xaalis CFA bi tey nga fekk ne ay trois cent trente trois mille deux cent francs la maanaam juróom benn fukki junni ak juróom benn junni ak juróom benn téeméer ñeent fukki dërëm lii it nattu nattu la gëstu la boo xam ne defoon nañ ko ci luy tolloog ñeenti weer ci ginnaaw ci at mii ñu toll di deux mille vingt et un waaw ndax liy mbir tey mbir mooy ñaar fukki dinaar dañ koy nattale muy quatre vingt cinq grammes ci or bi nga xam ne mooy ayaar vingt quatre quatre vingt cinq grammes ñaari bi dirham ci ayaar quatre vingt dix neuf virgule neuf dañ koy natt mu tolloog cinq cent quatre vingt quinze grammes waaw léegi nag nisaab bi nissaab bi boo ko seetee jaaree ca zahab yaa nga jëm ca un million neuf cent douze mille francs waaye boo jaaree ca xaalis yaa ngi yem ci trois cent trente trois mille deux cent francs moo tax li gën a wóor li nga xam ne moom boo ko defee man a waat mën a yëkkati sa loxo xam ne yow moom sa jaan wàcc na la yàlla fartaaloon ci yow def nga ko mooy jaare ko ci xaalis bi boo jaaree ca or ba nag wóorut mën naa am asaka war na la te doo ko génnee moo tax sa dëgg-dëgg dañuy jàpp ne nisaabu xaalis ci jamono jii ñuy wax ak yéen tey jii nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-benn ci weeru août deux mille vingt et un nisaabu xaalis ci CFA mooy tolloog trois cent trente trois mille deux cent francs képp ku am somb toll nii ci xaalis daaw ba ren am na ci yow at mën naa am sax mi ngi yéeg wàcc waaye yéesut manqué wul lii benn yoon te amoo bor amoo bor bu lay teggil azaka duñ guddal foofu waaye bor am na nu muy demee dana tax doo dootoo génnee azaka na la wóor ne am nga ni nisaab azaka war na la xaalis bi nag boo xamee ne nii la toll muy trois cent trente trois mille deux cent francs daaw ba ren wu ko benn yoon azaka war na la bu ko ëppee it ak nu mu mën a toll kazalika asaka war na la waaye asaka ja nu muy toll asaka ji nu muy toll mooy euh, rubu'ul ushr rubu'ul mag ñi dañ ko daan jàngale di wax ne da ngay def ñeenti xaaj ñeent yooyu nga jëlaat ko benn def ko fukki xaaj wala nga njëkk koo def fukki xaaj euh, jël benn defaat ko ñeenti xaaj loola moom mooy nisaab ba mooy mooy mooy maanaam mooy mooy la nga war a joxe muy asaka loolu nag ci calcul bi gën a gaaw mooy def ko ñeent fukki xaaj rek rubul usri mooy ñeenteelu fukkeel def ko ñeent fukki xaaj moo tax xaalis lu yomb a génne asaka la ndax nu mu mën a toll rek da koy diviser par quarante def ko ñeent fukki xaaj trente-neuf ya mooy li la lew benn bi xàq yàlla la borom bi nee na nga joxal ko ko ñan nga koy jox mooy tomb bu ñuy jeexlee ci audio bi ci topp incha allah tomb bi ñuy jeexale mooy ginnaaw bi asaka waree ba génnee nga azaka ana azaka ji kan nga koy jox baykat bi ñorle xamsatu aw suq azaka war ko mu génne baykat ba nag la muy génne ci azaka mooy fukkeel ba bu ko defee fukki xaaj juróom-ñeent yaa ko lew benn ba azaka la bu dee mbayum nawet bi waaye bu doon mbayum noor genn wàllu fukkeel ba mu defee fukki xaaj juróom-ñeent ya ak genn wàllu benn baa ko lew genn wàllu benn ba lay joxe muy azaka somm bi ba mu amee nisaab ca gëléem ya nag ya xar ya ak génnee na azaka kan la koy jox fonctionnaire bi walla commerçant bi walla kii liggéey waaw maanaam tàmbalee ci jaaykatu beñe bi kii jaay radi kii jaay ndox mu sedd ak glace ba kay jaay ay oto ak ay avion ki bateau ki gaal ak yi ci diggante bi yépp lépp lu jullit bi di yëngu di ca liggéey di ca jëlee dara ba am ca nisaab muy ishruna dinaaran nisaabun fi zahab wala wala xaalis la fi fiddatin qul mi ataani dirhama te loolu ci xayma ci seefa bii nga xam ne moom lañu xam wax naa la mi ngi tolloog trois cent trente trois mille deux cent francs asaka ji boo ko génnee kan nga koy jox juróom-ñett la boroom bi tudd ne nañ leen jox asaka ca innama sadaqaatu lil fuqaraa yi yi mooy way ñàkk yi ñi nga xam ne seen man-man bariwul seen am am bariwul ña ngay daanoo ko jóg nga xam ne mën naa am am nañ as tuut waaye lañ am doyut leen dund ak seen dunduk njaboot ak masaakiin nii mooy ñu amul dara koo xam ne bu tàllulut loxoom ñaan bu tàllulut loxoom yelwaan du añ wala du reer wala du ndékki amuñu dara waaw Sénégal nag mën ngaa wax ne daanaka ñi fi ëpp ëpp ëpp ay fuqaraaw la miskin yi mooy ñu amul dara miskin moo gën a xaajoo foofu waaye borom xam-xam ne dañuy wax ne jox faqir moo gën ndax miskin bii nga xam ne tàllal loxo ci lay dund wala du dund dafa mel ni ñaar ñi bëgg a tukki kii départ xëyee Tuuba jëm Dakar dem ba dem ba xaajal ba ca yoon wa mu tagga tembe mënatula dem mënatula dikk dimbale ko mu yegg moo gën a yey dimbale kii moom bëgg naa dem waaye mi ngi toog départagul donte ñom ñaar ñep alxuraan neena nañ dox fuqara yi nañ dox masakin yi ñi ngi bàyyi xel bu baax ne borom xam-xam yi seen i wuute ci nuñ firee fuqaraaw yi fi firee masakin yi lu ñu xam la waye dañuy gàttal wax li gëna leer gëna wér rek fuqara yi moy ñi seen am am bari wul masakin yi moy ñu amul dara ñettel bi moy wal amilina alayha ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen liggéey di liggéey ci asaka waaw ba islam di organiser wu di am ay état am na ñoo xam ne seen liggéey mooy dañuy wër fu asaka nekk ñu jëli dajale asaka yépp andil buur ñii di garde asaka yi ñii di séddlewaat asaka yi di ko jox ña ko yeeyoo ñooñu doonte am nañu alal comme dañoo bàyyi seen liggéey yëpp di liggéey ci lii man caa def ay fan ay weer man caa sonn coono bu ne dañ leen di jox ak ca asaka ja bal bu ñuy joxe sax day ñoom lañ war a njëkk jox ndax kuy séddale te bëgg ca la ngay séddale dëgg dëgg da ngaa war a njëkk sédd sa bopp wala ña ngay njëkk jox mën naa am lañ waroon a am du mat nam war a mate kon innama sadaqaatu lil fuqaraay wal masaakin wal aamilina alayha wal muallafati qulubuhum waaw ñoo xam ne ay gani lislaam lañ jox leen azaka ngir gën leen a xemem loo gën leen a dëgëral ci lislaam noonu la ko Omar ibnu Xataab jàngale woon ci jamonoom baat bi nag ca cosaan lam daan firi mooy ab yéeféer boo xam ne ak kéeféeram tarul ak kéeféeram méttiwut lool ma ngay xamam lislaam ma ngi koy gëstu di sikk sàkk ak dengi dengi bëgg a dugg di waxtaan ak moom di ko jox azaka ngir gën koo xamam loolu lislaam ba dugal ko ci borom xam-xam ne dañuy gis ne loolu mooy cënjël benn lislaam ba lislaam di néew doole bokkoon na ca sax yéeféer boo xam ne borom xay la borom fitna la mën naa teg jullit ñi ay fitna jox ko azaka ngir mucc ciw ayam waaye bi mbir yi soppeekoo nag ñu ne lislaam soxlaatul di neexal kenn kon mu àllfati xuloo boobu mooy ñii door a tuub gën leen a xamem loo gën leen a dëgëral ci islaam tax ñu jox leen azaka wafir riqaab riqaab mooy jaam yi kenn daawul jël azaka di jox ab jaam caba ba jaam di am waaye dañ daan jël alali azaka ji goreel ci jaam bi wal xaarimiin borom bor yi ñi nga xam dañoo lebal lebal ba ay borom bor wër na leen fu ne lott nañ ci fay seeni bor jël ci asaka ji fayal leen seeni bor loolu nag buñ koy wax waxuñ koo xam ne yow yaa ko lebal maanaam lebal nga waa ji masalan un million amut lu mu la fayee nga génnee asaka jël un million bi ne ne diw laa koy jox waaye dama koy téye muy bor ba ma amee loon déedéet loolu du asaka asaka kenn du ko génnee muy dellu soit ci yow rawat na génnee ko te génnul sa loxo génnee ci poche bi dugalaat ci poche bi wa fi sabilillah ba jullit ñi di jihaad danañ jël ci asaka ji dépassé ci ya soxla soxlawoo ngir jihaad ji mën a taxaw moo xam ngànnaay yi ñuy jënd moo xam yi ñuy dundee ya war foofu it faw ñu leeral ne ñenn ñi dañuy wax ne fi sabilillah lu yaatu la defar daara yeeg defar fajukaay yeeg yoon yeeg teen yeeg yépp fii sabilillahi loolu njuumte la fi sabilillahi fuqahaul malikee niñ ko tuddee niñ ko firee wal muraadu bihi mooy al jihaadu duunal xajji waxuñ kuy xajji waxuñ kuy defi leneen jihaad moo taxoon ñuy wax waaye boo ubbee bunt bi yaatal ko ne foo dépassé alal rek sañ ngaa jël asaka tabax ci jàkk wala daara wala école wala defar ci yoon wala teen wala fajukaay ak nangam ak nangam yëpp fii sabilillahi la kon day mel ni amatul benn ma jarutoon borom bi di lim juróom-ñett yi ndax boo ne fii sabilillahi moom day yóbbaale ñëpp kon baat bi nañ ko bàyyi place am yen ko lim yenu ci maana bañ ko cee yokkal bañ ko cee wàññil dara ba jullit ñi jihaad daal asaka mën nañ koo dépenser ci jihaad waaw waaye nag bu kenn génnee azaka wala bu kenn yaakaar ne man ngaa génnee azaka jël sa azaka ji ne dama ci tabax daara wala dama ci tabax école sëriñu daara ba mën naa am faqiir la mën naa am miskin la mën nañ ko jox azaka ngir faqiir la wala miskin la waaye jël azaka ji ne dama koy tabaxee daara wala dama koy tabaxee jumaa loolu njuumte la ku koy def na xam ne mi ngi ci njuumte juróom-ñetteel bi mooy ibnu sabil mooy musaafir bi ki doon tukkee tukkee tukki ba la mu yoroon ca alal geex na lott na amut sax lu ko delloo fa mu jógee woon doonte fa mu jógee na nga fa bàyyi ju baree bari waaye dañ ko dimbali ci asaka ji ba mu mën a delluwaat loolu nag mel na ni jamono ak ni muy doxee léegi nga xam ne fu nit mën a nekk ci kaw suuf bu soxlaa alalam mën na ko faa fekk ngir jumtukaayu jokkoo yeeg jumtukaayu yónnee yi jàppandi na mel na ni loolu bareetul waaye juróom-ñett yi mbokk yi bu dee ci suñu réew yi ak suñu jamono jii daanaka asaka mën naa bañ a génn ñaar njëkk yi muy fuqaraaw yi ak masaakin yi yi ak masaakin yi asaka daal li li ci war a génn yépp bu génnee balaa ngay jeexal fuqaraaw yi ak masaakin yi day fekk ne asaka jeex asaka nag ku ne xam na ne ca njëlbeenu lislaam defaroon na lu bari lijjanti woon na lu bari yi jullit ñi soxla woon mënuñ koo ñàkk yépp daanañ ko taxawee donte ñi néewoon doole bari nañ waaye organiser teg mbir mu ne fam war a tegu looloo tax fii jamono toll jaadu na yey na lool ni mu amee ci réewu jullit ñu bari réew mu mel ni senegal lu tee ñu am ay mbooloo yoo xam ne seen yitte ak seen liggéey yépp mooy di organiser azaka di ko dajale di ko joxe ci ni ko lislaam gërëmee waaye di ko def ci anam gu ànd ak xam-xam ak xikma azaka bañ a yem rek ci lu ñuy jox nit ki mu dundee ko ñaari fan wala benn fan mu jeex di tàllalaat loxoom di xaar keneen ku ko jox leneen waaye nekk loo xam ne kiñ ko jox bu amee tawfeex tuuti balaa déwén déwén jéeg moom ci boppam mu mën a génne asaka loolu lu jàppandi la kon euh, dëgg-dëgg yàlla na te mel na ni mel na ni am na ci julliti réew mi ñuy xalaat ak di jéem ubbi bunt yu mel noonu fexe ba amal li ñu tuddee baytu zaka muy këruk azaka di dimbalanteeg mbooleem ñi azaka war moo xam baykat yi la moo xam sàmmukat yi la moo xam ñiy fàggu alal ci geneen anam la ba bu azaka waree fekk muy ñu xam sharia nag xam ay atteem xam ay jubluwaayam bañ a jëf-jëf dina jëf naa ko sama jaan wàcc na waaye l'islam dafa bëgg yim yoonal yépp dafa am ay jubluwaay ay maqaasid maqaasidu sharia fexe di taxqiq di yegg ca maqaasid yooya loolu lu yàlla la loo xam ne kilifa yi ak borom xam-xam yi war nañ cee waxtaan waaye war nañ cee taxaw asaka bañ a nekk habaan mansuuran kenn ku nekk di ko defee nam la neexee ñii di ko def ci ak njub ñii di ko def ci njuumte ñii di ko bañ a def ñii di ko jox di ko joxe ci anam koo xam ne sa dëgg-dëgg mënoon naa ëppal njariñ ñañ koy jox manon na leena gëna dimbale ba bu yàggee ñoom seen bop ñu diko ko joxe au ñuy continuer di jël ataka ba ba ñuy xëy di faat kon alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi sant yàlla di jéggulu ñëpp ci guddug waxtaan wi waye di jéggulu borom bi lépp lo xamné ne njuumte la lépp lo xamné ak manki manki la هذا وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وامته اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Serigne Souleymane Badiane macha allah xam-xame na lool kawe na njortatem fàttali nga ñi xaman xamal ñi xamul woon euh, feeñal nga ceetem dayob asaka ak wàccuwaayam ci lislaam ak ay njëriñam ak importance bi ko lislaam jox ba tax mu rot ci laaye yu bare bare bari ci alquraanu karim ak xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttali ñoo tam nisaab fi alal war a toll ba asaka war cee génn kon ñoo ngi lay sant bu baax di gërëm ci leeral bi ndax ni nga ko waxe waxtu wii ñuy dugg ci at mu bees jullit yépp war nañoo bàyyi xel seen xalal ak liñ ci war a génne ci asaka kon ñoo ngi lay sant eh, di la gërëm ci turu mbooleem at taawun fi diini wal xayaat tey ñaan yàlla subhanahu wa mu yokk sa xam-xam yokk sa wér-gu-yaram ndax ni ma ko waxee rek bokk nga ci ñi nga xamee ni ñàkk ngeen jot waaye nag fu ñu leen woowee ci xam-xam ak xamle lu ngeen jàpp ngeen bàyyi ko wuy si kon ñoo ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi kon waxtaan waa ngi noonu ku am lu mu ci bëgg a laaj mën naa daal di tàbbi laaj ko ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di yokk a sant Serigne Souleymane Badiane ci turu mboolem waa daare taawun fi diini wa xayaat wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu